yàgg nañu bëgg mu am lambaloog waaye combat bi bëri na li nga xamante ni dañ ko doon reporté tey jii si baaxum suñu borom ñoo am yaakaar ni fii ak une minute wala deux minutes lambaloog arbitre bi dina sifflé si diggante ñaari xale ya. waaw mooy yoon ñaari champion ya. gars yi nappante si biir bi nag mais Alboury dem na ba ko géew bi. mbokk yi jërëjëf yi Alboury di bëral fa Alboury taxawee. loolu tegtalu làmb la pop pop pop mais nag tey gis làmb ju gaaw am na li nga xamante ni moom la jërë doy yore am na lu jërë doy yore dugg si ñaari tànk yi moom jërë doy lan la yore noonu Badou ay naxante la waaw waaw dugal na si diggante ñaari yaar yi jox na ko waaja waaw waaw xottu saako la mu bi ñuy wax ak yéen mbokk yi mbokk yi Alboury mi ngi noonu ñaari mbër yëpp pare nañ moom aussi di waxante ak ki nga xamante ni mooy mooy mooy mooy mooy koy ba Serigne Alboury di ko sëm Serigne Alboury bu ñemee dëggal xeex bi mën naa am dara mais Alboury bu ragalee xeex bi day am problème ndax Diarra 2 boo koy daan il faut nga xeex ak moom bagaar bagaar bu aw yoon. Diarra 2 daanaan la a fàttali ba nag Franc troisième combat wu Franc moog Diarra la woon. waaw parce que Diarra fi mu jaar moo gën a teeng waaw. parce que champion la Alboury daan nay mbër de mais fi Diarra jaar ak fi ak Alboury jaar bokkul. wax nga dëgg de la Alboury kenn jombu ko ndax Alboury jot na mbër. Alboury bu taxawee rek boo ko xoolee xam ne kii bu ñimee du neex a daan am ne mbër kaamil taxaw na mais tey ngay xam ba xam ñime na wala ñimewul mbokk ndaw koy jur non mënul ñàkk yow abu fii boo jaar mu bari mystique mbokk jaw fara tey bi ma gisee cumikaay laa xam ne ñoom ñaar ñëpp décidé nañ gisuma jaw fara lamb waaye saa yi xam naa ne toogul ndeysaan moom jaw fara kan mooy jaw jaw fara suñu confrère la kan mooy Diaw Serigne. Diaw Fara mooy nee na suñu confrère. a ah, Diaw man xamuma ko waaye Serigne. waaw magu Alboury ngay wax. magu Alboury la ñëpp jaw jaw Serigne war nga kaa yuuxu. magu Alboury la moom Diaw Fara. mais en tant que lambalok ñu wax dañuy mooy waaj a suuf de ñu wax ñoom ñaar. li làmb bëgg li làmb bañ. maa wax loolu Serigne. acca suñu xel dem si Serigne Mara borom jàmm gën. waay ràcc naa. Serigne Mara nee na ma ji Serigne. xam naa kuy daan dama ne ko Serigne Mara kan la ma tur. Ah. waaye damay bàyyi ba armi bi ma doog a wax Serigne Mara waxoon làmbaloog tey ñaari mbër yëpp ñoom ñëpp a ñuul ñoom ñaar ku nekk indi nga entraîné nañ moom ba mat sëkk ku nekk ñëw nga waaw arbitre baa leen yedd li nga waroon préparé préparé nga ko di la wax li arbitre nangu ak li mu bañ doomu Jolof baa ngi noonu taxaw jàkkaarloo doomu Pikine bi tey bi àgg arbitre waaw waaw yaay leen bi àgg. lamb ji da nga vigilant ah, arbitre. waaw ya lamb ji yàlla na àgg ak jàmm. lamb ji day àgg lamb loog. waaw parce que du yàgg du yàgg. lamb ji du yàgg lamb ju gaaw la. bu leeree rek arbitre bi du juum. mbokk yi am na lu jërëjëf toj muy nen. jara toj na nen. dañ nga nen yàq cuuj. waaw waaw yàq omelette. mënoon nañ ko def mayonnaise bu bëree. mbaa omelette. a caar mu sumee na mbokk yi. ràcc na. mbokk yi tey la jeudi. nga loolu. 14 mai. koy doxloo. wala 18 mai 2023. fii si arène nationale drapeau dina dem Messi Karamba sama xel jëm sama papa ja si Ahmed Tidiane Cissé góoru Adja Kell doom mu baax ma ñoo ngi nuyu. na def ndànk. di ko kontaanee di ko ziar. booy bi xeexam daa garaaw. baax la a gën a xeex. waaye Ousmane Diop di baax sa wet di nuyu naa la ak. mi ngi bëgg droite bi jóg. waaw waaw jara jërëjëf Ismaïla Ndiaye nuyu naa la. jara kii du ku ñuy sori. jara fay droite woon ñu ginnaaw Alboury jokkaas na Alboury ki ngay bëre respecté ko. Alboury jara ay waay Alboury lamba loof ko. lambi lamba Alboury ku muy la nga jox cër. boo ko joxul cër mu defar la. daa am lamba moom jërë de. Alboury ndax bokk si lamba Alboury wàcc na. Alboury bag lay passé. ndeysaan kala teg seen maa la de. ren parcelle. ak ak Pikine la. ça passe mais ça casse. kon parcelle Pikine dina neex dina yëngu. parcelle Pikine dër bi la a nañ ñoom ñaar jël na xeex xeex kaw attention kaw attention kaw attention kaw attention kaw attention kaw attention kaw attention kaw attention kaw lañ la la. neex na waay. xeex nañu ñëmee du neex a daan xeex nañu waxoon naa la bu ñëmee du neex a daan xeex nañu waxoon naa la bu ñëmee du neex jërëjëf dem na ardo dara boo xeexee da ngay ñàkk jërëjëf dem na ardo dama koo xam newoon jërëjëf dem na ardo day ñàkk jara doo xeex ak ñool jërëjëf dem na ardo da ngaa kor pompe koy kuu mu dem ardo lamba jërëjëf dem na ardo waaw jara ay kuu yu mu dóor lamb jërë dem na ardo mais il faut dem ardo parce que dañ kaa kor mais jërë la lamba matul njool ndaama du xeex ak njool il faut ndaama ki repère si lamb non mooy yoon ni mu doon na bëre da ko agressé mais agressé bee baaxul ndaama lamb ja njool kenn du ko di taxaw maa la wax loolu hop hop hop hop eh ilaaha ko defati de mais nee naa la Alboury bu naccee lay a garaaw Alboury ngi noonu oh, yàgg naa dem Ardo ñëw wane jom. ñuy suivre à travers seen la fa dooree mbokk yi nous sommes ici à l'arène nationale. le 18 mai 2023 mbokk yi drapeau Karamba Djiné Dé Messi Albouri doomu mi doomu Grand Médine face à Diarra 2 doomu Pikine mbokk yi Albouri moo ñu wan kanam Diarra 2 ñoom ñaar ba léegi. dara amagul Alboury da kaa bëgg a sàcc xam na ni ñor na léegi. Alboury jërëjëf waaw bu demee coach dañ ko naan jeexal ko. mais Sénégal de la diaspora ñu ngi leen di nuyu. bëre coach lay bëree. di leen ziar di ko xam bëree koy xam. mbokk yi ñu ngi arène national. waaw moo jara xaw a am problème. bu métti. waaw gisoo. jël sol na ko kor. xeex ak moom xeex xeex attention KO attention KO jël na ko jël na ko jël na ko ñoom ñaar jàppante nañu jara na ko jara na ko jara sol na ko Alboury jara sa ngemb la Alboury jàpp na ngemb rocc loxo ndeyjoor bi di dóor bëdu Alboury ngay dóor Alboury ngi dóor Alboury ngi dóor lan la arbitre bi wax day demaat ardo Alboury am na ndam Alboury am na ndam doomu di mbirum bi am na ndam dara mënutul dem dañ ko disqualifié xoolal Alboury jël ko jël ko lay lay la laa eh waaye di mbirum xale bi